بعض العزبلة بسملة وبعض البسملة عمدلة وبعض العمدلة عوغلة وعن شرار الخلق والرزايا والجن والسيطان والبلايا عمدت من يحشمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر واجعل كلامي راسدا ومرشدا وفكرة النوير وقلبي أرشدا السلام عليكم jullit جلدي mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu àq di leen bal àq di ñaanal Seex Muntaxa al Bachir borom bi dëpp ko kàttan wéral ko waaye daw li yàlla yàlla wàccee yërmaane seen kaw di siyaare bokk yi ñuy bàyyi xel fii ci Murid Info ñoo ngi leen di siyaara di leen bàyyi xel bu baax a baax te di leen safoo saa su nekk di siyaare sëriñ Mbacke mi nga xam ne moom lañu nekkal ci xarala gi mu mel ne waxtaan wi nga xam ne présenté woon nañ leen ko te ndongali Mor Ndiaye fas yéene ko amal du caage ne sax dañuy xam xamle waaye dañoo bokk réew mi mu am ay histoire ñu di ci faral di jàngalante ak di ci gëstu kon nañu xam ne ndongo luy sàkku xam-xam la waaye nekkul koo xam ne day ñëw rek ngir di jàngale. suñu réew mi nga xam ne mooy réewu Sénégal di réew mu yàlla barkeel am ay kilifa yu baax. waaye nekkoon réew moo xam ne it ay bañkat lan woon waaye nekkoon réew moo xam ne lu ne jaar na fi colonialiste yi tubaab yi bari jaar nañ ci réew mi nga xam ne mooy réewu Sénégal Sénégal njëkkoon naa nekk ci kilifteefu Gana loola histoire ba day gudd waaye bi nga xamee ne Sénégal nekk na ci kilifteefu Mali te jamono jooja Mali am buur bu ñu wax Mansa Souleymane jiite woon yilif li Séné topp Sénégal gépp bi yalla defé man sa sulayman momu fatu ñeka warona dondu war ko wutu dañu am ay jafe jafé seen biir ci ñaka déggo ci la ko ñu wax Njaajaan jaay nekkon Jolof profito libéré Sénégal ci loxay Mali. bi mu leen génné ci loxay Mali dafa def ben confédération bu yilif Jolof yef walo ak kadior ak lenn ci sin waye ci biir yilif gogu yit ñomit day mel dañu nekk ci ak ba seen bop ndax. am na ay impôt ay galag yoo xam ne ñoom dañ koy jël di ko jox ki nga xam ne moom mooy buur ba jolof mu mel ne buur fédération jolof boobu dund na lu yàgg yàgg yàgg yàgg waaye jamono yi nga xam ne njaajaan njaay sos na ko am na benn pël bu ñuy wax kuli laa kuli laa moomu mi ngi jógee côté Gàmbi jaar jolof dem Fuuta Toor sos fa de deñànk sana lool njaajaan njaay ci ay xeex yu baree baree bari ba loolu xawoon naa sax fédération jolof boobu xaw a néew doole waye bi mi law di law ba ak ci lalifak di buru jolof federation ba ci lalifak fàkk moom mu ci la tassé lan mo tass federation jolof bobu ku ñi wax Amari ngone sabel yaayam di ngone Jaay jóge lambay sey si won ci lamane de tiefa ndiogu di premier damel 8 sour ginaaw danki ngone Jaay moom mu kër bi mu waccé kër lamane de tiefa ndiogu dafa fekk bobu amna ben serigne bu ñu wax Amari Ja fa bi juróom-ñetti fan ñamatee ba ñu soq ca njël abari dafa yeewu na leen kuur yoon dal bi gis naa ci jigéen goo xam ne ndigg la ko war a yilif réew mi mi ngi ci lamaan de fa njógu na ko ndax bu dajee bëccëg di nga bu ñu soqee borom kur ga bu dëbbee di ko xam mu ne ko waaw wax nañ ne loolu moo waral soq bi yor yor ban xëyee ngoone njaay ñëw ak topp yi kuur ya di dal ba ngoone njaay dëbb mu ne kooku na téye kuuram kii de ndiggam la ci ndiggam li dooma ngi ci joo xam ne bu màggee dina yilif réew mu ne ko fekkee li nga xamne da yow la ko tudde ci déwén sa mu ñew fa ak mu am dom muy Amari Ja ñu tudde ko Amari ngone Sobel way turum deug Amari ngone Jala koku nak bi mu magge mo gis bayam di joxe impo ay galak mu ne yow sama baay li lan la mu ne ko de dañu fekk suñu baye ak suñu mam diko def suñu ñuko bañ aw yat la wonu teg wun munta tegg ñu and ci rek di def mu ne ko bo fekkee boo fexee ba bawal xam ma kajoor xam ma teggi lolu yaayam mi ngi dekkon lambay ñuy def bu nawet bi ñewé ñu yobbu ko bawal ba dugub ci toll ci ñor mu ñëwaat kajoor bi mu demee ba nekk mag ci la waxtaan ak ay doomi nijaayam ak doomi baayam ñu nas benn xare ngir dajeeg lali fàkk muy xare dànki boobu ñu def fi ajoor ray ki nga xam ne mooy lali fàkk ci xare dànki waa kajoor daal di wax ne ki damm yat wi nu tegoon nañ ko tuddee dammeel am na ñoo ne loolu mu andi tur dammeel bawal ne ki tegg li ñu tiiñoon nañ ko tudde teeñ donte am na yeneen version yu indi yeneen ci turu teeñ woowu ak nañu koy fale ak guy gu mag gu nekk bawal googu yooyu yëpp histoire pays bu ne ak na muy nettalee rek waaye bi nga xamee ne loolu am na it moom Amari Ngoone Sobel mu ne comme sama way jur day dundu munu mënuma fal falu di bàyyi sama way jur kon dañuy fal Déthié Fa Ndiogou Déthié Fa Ndiogou kon mooy première damel de Kayoor waaye bi nga xamee ne ñi ngi rey ay nag di waxtaan ci pal googu huit jours yi bi mo waree mat juroom ñetti fan yi da am nag wo xamne mo moo ci nag ye ya ñu waron ko ray mo faq ci teggat ba mu dal ci fa njóogu yah ba toj ba wax nañ ne ci la daan na sa yene yegg na comme sa nga bëggoon fal ta faatu na huit jours ginnaaw kon yow mi lañu jox fal gi ci la amari ngone sabel ne wax ne nag kajoor dem ak seen bop sama wa kër yaay dem ak seen bop waala dem ak seen bop bu kenn yilifati kenn kon lolu amari ngone sobel mom mo teggi yatu jam wowo bi loolu amé serignam di amari ja jël benn pitax takal ko ab téré moy pitaxu maryama daan nak fepp fum dal rek ab dekk lay don ab pay lay don bo xamna ya ko yilef pitax mi bi mu nawé biñ ko topé fas fas yi wax nañ né ci kat yi fum jëk dal moy fu wax ndaag ndago ñu topar kak ya, pitax man naw dal ci ak guerre ma ngi moy su guerre ñu topar kak ya, mu daw dal ci mbul ga ca tolu ngasim lo ñu topar kak ya, mu daw mu naw dal ci satando ga ca xandak ñu topat ak fasé ya, mu dool mu dal ca la man sen ba nek lambay ñu daldi di muy ay dekk yoy yep yo xamné ne ngone Ngoone Sobel momu am ko waaye jamono yoy nga xamné Kuli Tengala momu wax nañ ne mi ngi attaqué Njaajaan Njaay ci la tubaab yi commencé di xam dekk bi Sénégal ñi fi ñëk wacc nak ci yoy moy ay wa Portugal ñi fi ñëk wacc Portugal mo ñëk a ñëw ci réewum Sénégal ci atum 1444. waa Hollande ñoo ci topp ci atum 1588 waaye Portugal bi ñëwee ñu ngi daal fu ñuy wax Argyle Hollande daal fu ñuy wax gore anglais yi ñoo ci mujj ci atum 1657 dal ci tefesu Gàmbi français yi ñoo mujj a ñëw Sénégal ci atum 1689 ñoom ñu ngi daal fu ñuy wax Saint-Louis kon ñoom bokkuñu gox yi ñu nekk waaye ili gore lañ doon xëccoo ndax képp koo xam ne jot nga ko rek di nga mën a lu bari ci réew mi. Portugal moom ko Hollande nangu ko anglais yi nangu ko français yi kon ñoom ñoo ci mujj jot bi ñu demee ba ci onzième siècle la ñu commencé njàppum jaam jàpp nit ñi di leen jàpp di leen jaay ci ay tisi ay takkaay brende ay saabu yu ñàkk fayda di leen jox français yi ñu leen di yóbbu seen ili seen ili yi nga xam ne ay tooli suukar lañ fay bay njàppum jaam moomu nag wax nañ ne mi ngi gën a fes ci ñaari nit ku ñuy wax sàmba Gilaaju Ba di satige ca Fuuta ak ku ñuy wax Lat Sukaabe Ngoone Jeey bi njàppam jaam mu taree am na ku ñu wax naasiru diin dëkkoon Maroc bokk ci berbere yi da ko doon xeex mu ne rawatina sax bëggul kenn ko jaay ab jullit waaye surtout di ko jaarale ci géeju Atlantique gi mu taxawal jihaad yàlla defal leen ci ay ndam yu baree bari ba ñu nangu kajoor nangu bawal nangu waala nangu lenn ci siin teg fa ay buuri jullit ngir ñuy àtte waaye bi yàlla dogalee seen kilifa googu di naasiru diin moomu faatu ci atum 1679 la jihadu murabitoon yoyu xawa taxaw amatul benn dox bo xam dal doon nako ko dox ngir seen kilifa googu nga xamne mom mo genn aduna àdduna cedda yi jogat commencé wat njapum jam njap mo sax gëna tar français yi dugal ci seen loxo ngir ñoo leen gënoon ci jamono Lat Sukaabe ngone jey nga xamne wax nañ ne mi ngi falu damel ñi nenañ atum 1677 amna nañu ko ci atum 1690 amna nañu ko ci atum 1695 lolu tax ñu andi leen ñetti dat yoyu ngir. comme li ñu waxoon dànq sànq ci commencement bi kan mooy Lat Sukaabe Ngoone Jeey moo njëkk falu ci néegu barget ndax bu njëkk ñi ñu daan falu mooy drobe amoon na mu yooy amoon na sañu amoon na gelawaar am na yooyu yëpp dafa bari woon am na yeneen sax yu ñu limut waaye ñetti faalit ñoo daan falu muy faal maajoor faal ca yaasin ak faal ca ndeela Lat Sukaabe Ngoone Jeey dafa bëtt ci cercle bi waroon a falu ndax jamono jim mu fiy nekk ñaari doomi baayam yi ñu wax Lat Koddu Ngoy Ndaw ak Biram Koddu Ngoy Ndaw ñoo moomoon nguur gi kon nakal def ba falu day jaral leeral ginnaaw ba mu xaree mbuur xaree gàññi gaal xaree njawar njaay xaree lat koddu njawar njaay xaree masig ak maa jooja xaree kulikumba ak daaw yaane xaree lat koddu ngoy ndaw ak biram koddu mbay ndaw ca mbuti lat koddu ngoy ndaw ak biram koddu ngoy ndaw ñoo moomoon nguur gi waaye dañoo xare ja xar ñaaja ban xare ja xar ñaaja am fa ay jam-jam ku yor rew mi ñu nga am ben tuuma ñu ne nan faju ji waye nguur gi dañ koy denk sunu doom baaji di lat koddu di lat be ndax kat nguur dafa neex boko ko jambur bo boo do doo jotaat diggante ñu démé ko lat be lat be xel ma ko wër dafa dem ku melne ne farakaba faralambay buru ngol-ngol ñom ñep mu wër leen kenn ku nekk mu sekk ak yow tranga yeen saay daana dajale buri def ci ray lay yap wata bor jamono jooju garmi yi ñu ngi daan wuree fukki doom ak ñaari yu xaalis yu ngordu képp ku mu wureel ba ngoon rek boo ne ko foq yaa nga mun a jëlal nga jox ko sa soxna mu def ci ay lam bi demee ba ñëw ak biram ñëw toog lu yàgg lat sukaa bi waxu leen dara ñu ne ko yow da ngay doon suñu doomi ñu dénk la suñu ngóor gi waaye toog nañ diir bu yàgg waxuñu dara fekk lat sukaa bee wër na buur yi ne leen lat kodd ngooy ndaw ak biram kodd ngooy ndaw ñëw nañ dañoo bëgg a jëlaat gi lu ci seen pexe nga ne ko da ngay lànk soxna génn ak lam yi mu takk na la na lànk ngeen lànkaale ko ndax yaayam gontul woon di root di sotti ndaal kenn loolu moo waral Lat Sukaabe Ngoone Jeey bi mu delsee ñaari doomi baay mi ne ko dañoo bëgg a jotaan nguur gi da leen ne nguur gi fekku leen garab ngeen wékk ko ci da a fekk garab mi bu ko war a moom na yéen ngeen dénk ko loolu moo waral mu xeex ak ñaari doomi baay mi ca mbutti daal leen di rey Lat Sukaabe bi Ngoone Jeey juróom benn goro fukki soxna ak ñaar la amoon ndax dafa jël tendewe ji kumba jaar rakk ja ganesi ko mu boole leen jël dem tube ji ndeyam jëkk jël fa ndumbe ndee la ngooneen yàlla rakka ja gane ko mu bool leen jël dem ca rintaabe jongu jël fa ko ñu wax njéeme jongu dem waalo jël fa ko ñu wax euh, mataak mbóoj jël biram njaay ku ma ku ma njéeme mbaba njaay biram ku ma njéeme rakka ja gane ko mu boole mu boole leen jël jël korokoo njóogu yaasin njóogu rakka ja gane si ko mu boole leen jël jël awa sàmb mbaa ci sàmb rakka ca gane ko mu boole leen jël moo tax ñu ne lat sukaabe fukki gora ak fukki soxna ñaar juróom benni bi lol amé nak la jël njañ fatimi bok ak ndayam ben bay nako ko ma ca géej mu satti ko non ndukam rakka ji mu ne bala musul ko ne bala kenn jàll nag ma jox mbalan mu sangé lolou mo ara mo waral turu sangal kam bi nek Dakar te ñu bari dégg sangal kam sekk jóge kadior mu santal ko mbaw mbeng jolof mu santal ko yoof sambu jóge ndok mu santal ko ngor géej jóge njurug mu santal ko wakam lat sukaa bi ngone jey momu ngone jey domam momo xex ngone jeey moomu nag ñu bari dañ koy jaawaleek ngone la terfaal déedéet kooku dam doomi dameel teeñ may sa tend yor doomi teeñ lat sukaabe ngone jeey la bokkul ak ngone jeey doomi dameel teeñ may sa tend yoro ngone jeey moomu euh, lat sukaabe moomu tamit dañu wax ne mooy buur bi njëkk am fetal ci Sénégal ndax benn tubaab bu ñuy wax André Boury Dado moo ko jaay fetal googa moo ko André Boury Dado seen histoire dafa yàgg ca rëbb ma lañu njëkk amee problème ca ñam dajaloon ginnaaw bi xeex nañ mook André Buri Daado Lat Sukaabe gagné ko tëj ko ñetti weer ñi ne ëpp na ko 6 mois ñi ne ëpp na ko 1 mois ñi ne ëpp na ko kon André Buri Daado moo ko jaayaan fetal muy buur bi njëkk am fetal ci Kajoor moom Lat ngoon a Jeey Lat Sukaabe moomu it ci nguuram ci la damel bu ñuy wax damel dee celaw baasin suur faatoo ndax damel dee celaw baasin suur moo nekkoon damel de Kajoor mu feebar dem ca Luumeen ca Saalum di faju Lat Suka bi Ngoné Dieye daan ne teraanga ji nga xam am naa ko fii ci Bawol dama koy bokk ak waa Kajoor dajale leen ñi indi ay tisi ñi indi ndima ñii indi eh, dugub ñi indi ceeb mu koy teraanga jooju mu koy jut waa Kajoor. Lat Suka bi Ngoné Dieye damel dee ci law baasin suur moomee feebaree nekk Saalum ca Luumeen damel dee ci law baasin suur moom bi mu defee loolu bi mu nekk nekk damel da Kajoor te feebar nekk ca Saalum Lat Suka bi daa jàpp waa Kajoor di leen teral guddi ak bëccëg ne leen sama baay comme Kajoor la dëkk na Kajoor indi ndima indi tisi indi lépp ñu dem di ko bokk ak ñoom mbokki damel dee calaw basur yi nag dañoo dem ca dee calaw basur na ko lat sukaa ngoone jéey de mi ngi jàpp waa kajoor di leen teral loolu xam nga lu mu ci jublu mu ne waaw daa bëgg bu leen teralee ba mu yàgg mu laaj sama nguur gi daal di yónnee ci jëwriñ bul ne ko seen doom ji mi ngi jàpp waa kajoor di leen teral te man day faatuwuma damaa feebar nekk fii ci saalum di faju rek loolu moo waral dameel dee calaw baasin suur bi mu wéree loolu moo waral talaatay cirij talaatee ci rëcc xare bu métti la waaye Lat Sukaabe Ngoone Jeey demut moo yebal jëwriñ bul mu ànd ak kàngami kajoor yi ñu xeex ak damel dee ci law baasi ñu ray ko fekk na lu jiit loolu Lat Sukaabe Ngoone Jeey bi mu leen teralee ba yàgg dafa wax waa leen mbankaay la yàgg na mooy tawat de yàgg na kajoor na ko ñëwal tàlli ci la damel dee ci law baasi kon yebalee jëwriñ bul euh, Lat Sukaabe yebal jëwriñ bul mu dajeek damel dee ci law baasi ca ci rëcc ñu ray ko mu yilif bawal ak kajoor Ngoone Jeey doomam yooyu nag lan moo tax mu xeex ngaram ngaram mooy daa fekk buur Trace sa daan damay xeex ngàngaraam nga ca siin su ma rayee buur siin ray lat sukaabe lël li fi nekk jaar ci fëlëf bi dugguroo sa murtani keroog bi buur Trace sa waree ñëw ngir def xeex boobu daa fekk lat sukaabe tawat te du guddi nag di ko naqarlu di onk dom ju jigen ji ngone je bi mu yow fajar nako yow bay bur tracé bi wara ñew fi ngir xeex yow rek mool traine law mu nako adir dom lolu loolu da daa fekk ma tawat ndax bur tracé bu fekkone bi mu ñew da fekk mu wir dina ko dakh comme ni ma dàq ay morom ndax su ma ko dàqul am na ko ëpp doole yoo xam ne maa leen dàq ngoone jeey na ko bàyyi góor baax na yow dañ ñuy jaawale su bis bax nak ma lax sa dugal ma ci ma xànjang sa safa suñu tudde won jenn way ñu tudde ko ndeyel nek ñu ne ko ndeyel nek lu mu ne ndeyel nek su feñe ñaar ñi doon nas kenn ka moko netli ñu nas lolu bindee ba xare bi tàkk ngone jeey dugg ci gàllaaj yi euh, sangu ci xàmb yi génn ñépp ne Lat Sukaabe kañ la wér ndax xàmmewuñ ko waaye booba deret ji ak jom ji moo ko ci dugal waaye jigéen la xamu nu ñu xeexee bi xare bi tàkkee bi mu fetalee rek la ko góol la ko géwél bi na nga jàkk xool ko na ko yow njool ngoone daw woo ni mu ne ko naka la daan xeexe ba nga bëgg maa baatal mu ne ko da nga daan def dégg na naaje bu nu wàcc ci ngelawal géej ban bàq bu ban bàq bu buxaareek dem ngaare yirile kër saam ba bali def génn guddi soo fetalee am làmb dëpp ngone jëy ne nañ bàq buxaareek dem ngaare yirilee kër saam woo diñ ak colombaan ak néeg yëpp kër joor mbay biñ defee loolu ba bali def génn guddi la dawal jenn waaye ba jot bour trasa na trasa man man nga waaye doon naan fetal ko yur gën a ràcc fa so kon ngone jëy moom moo xeex li nga xam moom mooy euh, ngaram waaye lat moomu yàlla daa def it bi mu defee lool dane duma dëkk bawal kajoor di mer du ma dëkk kajoor bawal di mer dama naan màkk ci diggante bi mooy dig wi xaajale diggante kajoor ak bawal fa laay dëkk mooy fi ñu wax kër ma jëmbu jóob fa la def ab dëkk daat fay takk ñetti téeméeri néeg bu set mu rey fanweeri xabboon moom la sukaa bi ngone jeey bi loolu amee mu daat ne su ma defee sama lal bu rëy bii ci sama digg néeg bi su ma tëddee li commencé sama biir ba ci samay tànk Lol day ke bawal li commencé sama jumbo ba sama bop lol de kadior waye lak Sukaabe yàlla da ko maye nit nguram euh, mu am bayre am katan xare yu bari mu jakarlo ko ay moromam yalla may ko ci ndam amona ben farakaba fara fara junjung bu rafet bu wax ca da fay bu mu am ay bàkk yu mu ko dan bakal nggak kekebar. bakal gaga gak gaag ngaaka kebar dana ko bakalit om fagn na ngor roga dem na om fagn fagn ñu ne ko lu mundu mu ne nga bañ ngóor yàlla taw ci toolu ngóor nga bañ bañ bañ yàlla taw ci toolam ca daa fay moom mu am na ay bàkk yu bare yoo xam ne daana ko bàkkal ki nga xam ne moom moo daan uh, moom mooy la sukaabe daana ko bàkkalit sabar gi mee roog ñu ne ko lu mun mun ragal gëmut yàlla ndax fetal sax day mooy waaye lat sukaabe moomu bi ma faloo dafa sàkk pexe dafa jël sëriñ si fi nekkoon ca xam ne bis mën naa ñëw ñu yàqal ko am sëriñ soo xam ne dafa fexe ba dugal leen ci état bi ci nguur gi am sëriñ soo xam ne dañoo bañ waaye sëriñ soosu mu dugal ci biir nguur gi dañoo mujj jël judday man dañoo mujj jël jukkay ceddo yi jàpp nit ñu di jël seen alal yi di yàq seen kër yi ba mel ne ceddo yi am sëriñ yoo xam ne dañoo lànk ñoom ne duñ dugg ci biir nguur gi di def ay waxtaan di nas ay ay pexe sëriñ soosu ñu leen wax ay sëriñu jàkk yeneen sëriñ ñu leen wooye ay sëriñu làmb sëriñu jàkk yooyu fexe ba taxawal benn état islamique ca fu ñuy wax ci atum 1790 am na ñoo xam 1690 waaye 790 bi day mel ne moom moo gën a wér ca Bundu am beneen état islamique bu sosowaat ci njiital Ceerno Souleymane Baal moom it ca Fuuta kan mooy Ceerno Souleymane Baal Ceerno Souleymane Baal di nitu diine di koo xam ne taxawal na lu baree baree bari ci lislaam taxawoon na ba arab nekk làmmiñu officiel ci Sénégal mu yaatal lu bare bare bari doon taxawal ay jihad de xex lu bari ci diine ji yalla defal ci ay tawfiq mu amone doole ju bare bare bari ci fouta boba yit amana ay kangam yu nekkon ci rawati na ku melne ne Abdul Khadir Kan mo mu nga xamne ne moom won euh, dajale damel bu doy war waye bi yalla dogale ci an Souleymane bal mom mu fatu euh, ñom sen mbir yoy dafa xawa taxaw ki nga xamne moko imam wut nak moy ku ñax Abdul Khadir Kan Imam Abdul khadir Kan mo dajeeg damel bu ñu wax damel Amari ngone ndela di damel bu doy war di damel bo xam nguram nguuram xawoon tar lol ndax mo ray ben fara kabe bu ñu wax samba Fabe waye it mo rendi ko ñu wax Tafsir amadi Ibra nekontalbe malaminsar, ma lepu sar lol lepp damel Amari ngone ndela moko def mo tombe imam Abdul khadir Kan momu damel Amari ngone ndela bi mu defee lolou serigne ci dañu jaay sar bin se ma Lamine sar momu ba njaal ba mat ñu tok def waxtaan ñu wax ne kat damel Amari ngone Ndeela mi suñu ko baye muy rendi serigne ci day def lopp nañu fetal jaar ñu xex ak mom bin waxe lolu loolu ña nga yónnee ca mamaram ma nga ci Mbàkke Sañank mamaram ne len lolu du xex bo xamne dañ ci wara walu ji nit ndax du xexub jihad ñaari doomi adama yoo xex kep la kon masla ci mo ci gën sëriñ soosu yàlla daa def ñu dajeeg dammel amari ngoone ndee la dammel amari ngoone ndee la gañe leen muy lu metti ñii mu jàpp leen ñii mu rey leen ñii mu tëj leen ca déwén sa am na ñoo ca ñaareelu at ba maam maaram dafa jóge Mbakke Saañanka ñëw jaal si ma Lamin Saar dugg suuf si Kajoor ne leen dameel bi maa ngi koy nuyu dameel bi na fay naa ko na jàll si Sering su bari dañu japp ci mamaram maaram na ko soo àggee da comme ni mo raye sa mbokki sëriñ soosu rek maam maaram ne leen maag yéen ay mbir ñew ci damel amari ngone ndela nako serigne ci nga jappon ci xex bobu la bëgg ñi nga ci mëna bayyi nga bayyi len ñi nga ci mënta bayyi bu dafa laaj ñu jot len ma jot len damel bi da rafet lool am xelam dal di bayyi serigne soosu daal ne ko ne damaa bëggoon nga dëkk ak yow dal di ma li ci lu bari bari bari mu ne ko man dama jëm mak munu ma dekk ak benn bour waaye daal dina bàyyi kenn sama njaboot gi mu nekk fi am ñu ne daa jàpp ci loxoom Ibrahima awañang mu ne ko kooku sama loxam day jor la mënuma ko bàyyi waaye da fi teg ku ñu wax Mamadou Farimata Mouhamadou Farimata moomu wax nañ ne dammel Amari ngone Ndeela moomu moo ko daggal suufus Mbàkke Bawal Sering sosu bi ñu ñàkkee xare boobu seen ak imam Abdul khadir Kan eh biñu ñàkkee si xare boobu seen damel dammel Amari ngone Ndeela dañu bind lettre Imam Abdul Khadir kan na Islam, yau yow kep ya mën Islam l'islam ndax kat serigne ci xex nañu ak damel bi gagné na len imam Abdul Khadir kan moom mu takk benn xare boo xam ne fanweeri junni la jëlee fuñu ñuy wax Fuuta Toor fanweeri sordal sordaal ci ak serigne ci nekkon digënté kadior Bawal salum lenn ci njambur serigne sofu sisit andak imaam Abdul Xaadir kan kon xare ba mbooloo mu bari la ndax bu dee jëmmi Fuuta rek wax nañ ne fanweeri junni nit la fa jëlee waaye nag aw jigéen ña nga ca aw xale ay xale yit ña nga ca ak sëriñ si mu fekk Kajoor rek ba wala Njaambur ñu dajeeg damel Amari Ngoone Ndeela ca fu ñu wax Bongo waaye la gën a yéeme ca xare boobu mooy damel Amari Ngoone Ndeela daf leen a gañe imaam Abdul Xaadir kan mi jiite woon bopp xare bi ñu jàpp ko moom ci boppam tëj ko sëriñ si ñi mu jàpp leen tanke yi mu japp ci lu bare bare bare bare jaay leen muy lu gëna metteti lo xamne lu doy war la ci jamono jojo nga xamne kon imam Abdul khadir Kan mi jité won xare fan fanweeri ju nit ñu japp ko biñ ko jappé reuy ko da ko tej signé ak mom ay accord nako da ngay signé né do jogé té fouta mukk ñew di ñu fekk fi di ñu ay jafé jafé wax nañ ne Abdul khadir Kan dafa signé Net nettalikat yi tamit amna ñu wax ne bi ko signé ba mu àggee danu ko danu ko rey am na ñu nettali loolu waaye daal li ci gën a yéeme daal mooy xare boobu moom ñoom ñàkk nañ ko ñu wax ne it ngoon googu ñuy def xare bongo boobu muy xare bu metti boobu ci ngoon googu ci la Cheikh Omar Fouti Tall tukkulóor ba des Bandiagara ñii ne Gora wax nañu ci ngoon googu ci la ganee jamono waaye juróom dafa nekkoon taalib imaam Abdul Xaadir Kan moo tax fekkewut xare boobu ñu wax ne loolu mi ngi am ci atum 1676 am na ñu indi loolu am na ñu indi yeneen date waaye histoire sa taarixu maa kaana waaye laysa taarixu kamaa kaana ñu wax ne sax baayam moom Cheikh Omar Fouti Tall baayam loolu moo waral sax euh, xare bongo boobu nam te waroon a demee dëgg-dëgg euh, demu ko ca mënut a ñëw waaye diir boobu nga xam ne euh, yooyu xew na fi. ta damel amari ngone ndela momu li lat be nang won muy jël si den dugal ci bir ngor gi ñam ay xalaat ak yoy ah mom daf ko bañ mom bi mu faloo daal nangul ben sëriñ buy ba dugg ci ngor gi waye rawati na ben boo bo xamne da ngay jema yir sa bop la ngay jema mom dara lol lepp damel amari ngone ndela mom daf ko bañ waye sëriñ sosu bi ñi ñaké xex bobo muy ngañaay lu met lolou eh, l'islam yëngalul dara daf na tek ñi perte doole ji bare bari na tekk na tekk ba ni Seex Omar Fuutiyu Taal ganee jamono ci at moomu wax nañu ci ngoon googu ci date boobu ñu leen waxoon léegi ci la ganee jamono am na ñu indi loolu muy atum 1676 am na ñu indi yeneen dat kon diir boobu yépp da gis ne kon lislaam yëngul dara def na tekk na tekk na tekk ba ci atum 1852 wax nañ ne la Cheikh Omar Fouti Tall commencé def jihaad 1852 boobu it Euh, yenn riwaaye yi wax nañ ne ci la Seexuna Seex Ahmad Bamba Xaadimul ganee jamono waaye am nañ ñu ko indi ci atum 1853 ba 54 waaye 52 ji day mel ne mooy li gën a siiw Seex Omar Fuuti Taal di nitu diine di jàmbaar joo xam ne du delt ginnaaw ci menn mbir di ko amoon fit di góor gu dëgër di koo xam ne amoon na ay taaliba yu bare bari tasare njàngaleem l'islam ci bir senegal tabax ay jakka aj makka ci fànn yu bari mu def ko di joxe ay wird mom Cheikh Omar Fouti tal Cheikh Omar Fouti momu ñim doon jakar lol dañu xawa bari ndax da doon lok lu mat ñenti ñenti force doona jakar la ñom Cheikh Omar Fouti yu doona jakar lok colonialiste yi waaye doon na jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamukatu xërëm bi waaye diggante mag na ibrahim Mouhamadou Ba mi sancoon Wuramaadi seen diggante ñoom ñaar day mel ne neexul woon waaye diggante mag mbokki xaadiram yi rawatina ko ñuy wax Ahmed Azan al Bekaa yi ñoom seen diggante neexul woon ba tax na Cheikh Omar Fouti taal jihaatam ni mu war a jàlle dëgg-dëgg daal des tax euh, mënu koo jàlle ndax moom gis-gis bi amoon moom Cheikh Omar Fouti taal mooy dafa gis ne fii ci Afrique soowu jant Ahmed Assane Albaka yi moomu seen diggante jafe-jafe yooyu mu amoon tax na daal Cheikh Omar Fouti yu jihaatam ni mu waroon a jàlle dëgg-dëgg jihaat jëlut ba wax na sax ci lañ amee ay jafe-jafe ba ñu def benn xeex ñu jàpp Cheikh Omar Fouti yu gaw ko fu ñu wax àndal bañ ko fa gawee neuf mois wax nañ ne dafa xare ak ñoom xare bu métti xuus rëcc génn ñu topp ko ba ba ñuy wax Gora Gora googu am na ñu wax ne Cheikh Amar Foutiyou fa la sayite c'est fa la fa maanaam mbiram daal foofu la moom Cheikh Amar Foutiyou Tall am na ñu wax ne Cheikh Amar Foutiyou mbiram mi ngi yem fu ñuy wax Bandiagara ñu wax ne colonialiste yi la amal jafe-jafe ñu topp ko ba fu ñuy wax Bandiagara. bi ñu ko toppee ba fu ñuy wax Bandiagara wax nañ ne foofu la ñu jëlee bakkanam foofu nag histoire lim ci indi dafa bari ñii wax nañ fànn bu nekk daal am na ñu wax na it bi mu ko toppee ba Bandiagara am na benn xeer bu mag bu nekk foofu ci xeer yi Bandiagara Cheikh Omar Fouti dafa dugg ci xeer wi wax nañ sax ci at ci année 1800 1993 jàpp 94 wax nañ ne président bi fi nekkoon muy Abdou Diouf euh, dem na. indi lenn ci ay bagaasam lu mel ne derba lu mel ne course ga ak ak satala yooyu xeet yooyu loolu am na ñu ko indi waaye daal jihaatam euh, jafe woon na Ceerno Ibrahima Mouhamadou Ba moom mu sancoon wala maa diit seen diggante ah dafa xawoon a naqari waaye ku tax la daal lu bëree bari ci lislaam daan joxe ay wirdo xaajaree lu bëree bari mu yaatal ko di ko am fit ay xare yu bari yàlla defal ko ci ndam waaye ba yàlla def daal jihaatam jooju euh, dëgg-dëgg na mu waroon a jàlle jëlewut am beneen doomam bu jóg bu ñu wax Ahmed Ahmed moomu it jël na jóg na continuer jihaad ji dëgg waaye bi mu ko continuer seen mbir dafa mel ne na mu war a jàll dëgg-dëgg jëlewu ko moom Ahmed Assane moomu waaye bi mu daanoo dafa am keneen ku jógaat di benn koo xam ne taalibeem la woon ku ñu wax Maba Jaxu Ba Maba ak colonialiste yi seen mbir moom it bari na lool am nañ ay xeex. waaye maba it diggante mag waa siin seen diggante neexul woon waaye ñi ko wuroon lu mel na buur waliyaa buur ñaani buur gasaan ñoom ñépp seen diggante ak maba xawoon na am ay jafe-jafe waaye maba jaxu ba moom mu it xare bi mu daanoo mooy xare somb waaye xëy na dinañ ñëwaat ci beneen numéro ngir gën a leeral mbirum maba jox ba ci kóllëre goo xam ne amoon na ko ak xare bo xamne ne ko koto la muy xare bu ñax paté badian bobu xare bu méttee beti mu andako nak ben benn fakta de bu ñuy wax jor ngone la tir ak ku ñuy wax ñom Demba War jor ñu gën ko xam ci Demba War Sall de kangam yo xamne dañu dañoo gàddaawoo gàddaayee woon Kajoor bataay de euh di xare bu metti bu ñu ñàkkoon bi rayante ñom lu bare bari ñu gis ne kon ñom dañu wara dem fi xasse mom moy mooy sin ngir mëna laq dañu wara dem fi nga mom moy ñora ngir wara mëna laq ci euh, mabba joxuba mel am na ñeenti réew yoo xam ne waxoo nañ ko muy Portugal muy oland muy France muy Angleterre ñoom ñëpp bi ñu fi bokkee nekk ba France mi nga xam ne moo mujj a jot ci ilu Gorée ci atum 1855 la wax ne ci at moomu it ci la France 1869 euh, la ñu wax ne ci la ci français yi dugg Sénégal ci 1800 euh, yooyu la ko topp tuuti wax nañ ne ci la nango gore bi ñu nangoo Gorée même at mi ci lañu nangu Rufisque bi ñu nangee Rufisque it diggante boobu it ñi ngi moom so ñi ngi moom ah, fi nga xam ne moom mooy Saint-Louis ñoom français yooyu bi ñu fi nekkee ah, coloniser réew mi ah, dañ doon fexe ba képp koo xam ne juddoo nga ci réew yooyu lu mel ne dëkk yooyu lu mel ne France lu mel ne Ndar dañuy fexe ba nga doon français maanaam dangay am carte d'identité bu France wala bo soxla ay lu melne passeport wala visa ngir nga génn senegal dal, dem France dafa yomb boba amna na lu ñu doon dindi ci xelu mag ñi fi nekkon ak ben complexe bi nga xamne doon nañ ko def nit ñu ñuul ñi. do len do doon ko def nga xamne ne duké ci rew yoy dal dañ lay japp dal français manam eh, da ngay nekk dal tubaab bu ñuul nga xamne pour ci da ngay nekk ci condition yu bax ba pare it ñi jàngé ci école de fils muy ñaan ñi jàngé ci école français yi eh, dañuy dañuy dañuy dañuy am ay condition yu bax ba pare it dañuy nekk ci. dundin bu baax ñoom stratégie bañ tegoon waaye jamono ja fekk na am na ay ñox ay bourtrasa muy bourtrasa yi ñoom ñoo ngi fi woon ñoom it ñoo ngi doon jéggi dex gi ak ñoom di dugg roosa dugg bi ñu doon dugg roosa dañ doon dañ doon jël dañ doon dañ lakk kër ñi kër yi ñi nga xam ñoom ñoo nekk euh, roosa googu di giir seen alal yi di sàcc seen mbir yi mu nekk xare bu metti seen diggante ak euh, boor roosa yi muy euh, waa Barag booba feder bu moo ngi fi feder bu li mu njëkk def mooy feder bu moom ñetti xeex la xeex ak waa waalo daal di nangu dëkk bii ñuy wax waalo bi mu nangoo waalo dañuy fa teg ku ñu wax Jóob Sidiya Jóob Sidiya ñoom ñoo ko yar ñoo ko jàngal seen école la génnee waaye kon booba ñi ngi junji colonialiste wala ñi ngi junji chef d'état ci réew mi ndax Jóob Sidiya moomu bokkoon na ci ñi war a moom nguur gi waaye dafay mel ne booba ay gi ko war a am daal jotagul dañ ko imposé dugal fi Jóob Sidiya ndax am na ñeneen ñu fi nekkoon ay ñoo xam ne ay braguois la te ñu gënoon yey ci nguur gi jamono jooja baj baj yi bari xëccoo yi bari mënu ko dékku ñu jël Jóob Sidiya ñu egsil ko bi ñu ko exilee dañu ko yóbbu fi nga moom mooy Gabon bu ñu ko exilee yóbbu ko Gabon la fa teg nag xalaat ku war a teg foofa ndax booba ah, xëccoo yi bari woon na amoon na ko ñuy wax diggante cejeek ak juus ay euh, xëccoo yu baree bari amoon na fi waaye it ci an at yooyu it ñoom doon nañ xalaat defar benn raay boo xam ne dafay dépare Kajoor ñëw fi moom mooy seel wi ngir transport bi gën a yomb loolu xam na euh, su yàlla dogalee daf yeneen ki dina gën a leer muy euh, semaine de fer boobu nga xam ne ab projet la boo xam ne mi ngi woon seen bopp waaye Kajoor it nee na woon teg ab diir boo xam ne Kajoor am na jàmm amul xare amul xeex muy diir bi nga xam ne may sa tend yoro yilif na kajoor di àtte may sa tend yoro dafa doon baayam nguur gi neex waaye moom xarewul xeexul muy màkk ak may sa tend yorogoo nga xam ne waxoon na leen sànq ne leen Lat Sukaabe Ngoone Jeey moom moo ko sa sanjoon kon moom dafa doon bàyyam rek euh, fekk fi nguur gi nguur gi neex nguur gi am jàmm waaye moom xërewul euh, xeexut moo waral moo tax moo waral ñaan màkk ak may sa tend yorogoogu màkk googu bi nga xam ne Lat Sukaabe Ngoone Jeey def na ko nga at mu jot daana fa rey fa euh, bés sa daana rey fanweeri nag fanweeri xàbboon nga xam ne yokk yooyu daan génnee ci yax yi moom la mag ñi daan ëcci daan ko def ay làmp ñaan la euh, ñaan ko làmpi màkk loolu jot na fee jot na jaar kon tubaab bi not na jullit ñi ci benn côté wala sur Sénégal ci càmmooñu réew mi mooy li jàpp waalo jàpp kajoor foofu yëpp tubaab bi xaw na koo not ndax moom ñetti xeer la def yàlla def mu daa di nangu dëkk bi nga xam ne moom mooy waalo ci loxoy boori baraag waale am na xëccoo yu amoon it ci diggante. ku ñu wax cejeek ak juus waye ñom seen bir yagul seen bir yagul na mu yagge deug deug muy diggante ku ñu wax cejeek ak juus waye bi lol amé fexe nañ dal ba tek fa ñom ku ñu wax mel ñi ñi juñu ñuy nañu waxtu wi euh, jotna ñu xam ñu leen di jéglu baax ci rek rëq yeeg njumte yi nga ci euh, ndongalé Mor ndjay la ñoo leen jox dig wa wasalaamu ala man tabal huda